أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه bokki fondation Maam Alxaaji Rawaan Ngom radiyallahu taala anhu seen bokkum taalibe seen xarit seen soppe Abdul Xaadir Ngom mu dellu siwaat sëriñ daara di leen nuyu ñaanal ñëpp sàkku ci ñëpp ñaan di ñaan Mawlaana tabaraka wa taala yal nañ yàlla yàlla dooli jàmm dooli ñu xéewal dooli ñu sutura dooli ñu teraanga yàlla dooli jàmm ci réew mi at mu bees mi nga xamante ni moom lañuy ñuy duggit yàlla def ko muy at mu ubbeeku def ko muy at mu dal ci senegal yiñ ciy séentu yëpp yàlla na ko yàlla def ci ci dal réew mi yàlla na yàlla tànnal ko ko gën ci moom ci barke Seydina Muhammad ba pare gën ci ñun nag yàlla na ko yàlla def hmm. yëngatu yëngatu yi fi jaaroon yëpp ah, yàlla nay cangatu réew mi bu ko defee at mi dugg ni atum deux mille vingt quatre mu nekk at mu dal nekk atum yaakaar atum ubbeeku ci réew mi ak ci ñëpp wér yaram fan wu gudd yàlla nañ ko ci yàlla may bàyyi suñu xel rek ndax ni wax dëgg yàlla <coughs> ni ñu koy faral di waxe ku dund ren ba déwén xam nga ni yow wóor na la ni yow liñ sa àpp bi nga amoon ma ngi gën a jege bàyyi ci xel rek waaw bañ a feetu rek ne dugg nañu deux mille vingt quatre dugg nañu deux mille vingt quatre déedéet waaye nag ñu jàngat ko xoolaat ko settantal suñu dund gi ndax ñun ñëpp yàlla ñu gudd fan fekkewaat ñu toog fii di ñaanaat naan ñu ngi dugg deux mille vingt cinq waaye fa tabarakallahu ahsanul xaaliqina même buñ ca duggee duggaat beneen duggaat beneen it suñu àpp ngi gën a jege rek ñu bàyyi xel loolu xam ne incha allahu àddina du saxukaay kenn dëkku fi dañuy dem rek dinaay faral di wax ne xam nga ne saaku ceeb bi nga toog ci kër gi sax bés bu jot nga tibb benn liibar am foo ko sotti bu yàggee saaku bi dina rës mooy dundug doomu aadama kenn ku ci nekk ci ñun fan yi nga fi war a am sa app bind nañ ko ba teg ko yaa ngi dem rek xamo kañ la xamo fan la xam xamoo naka la ah yàlla dajanteeg yërmande suñu boroom rek macha allah xam ngeen ni tey jii ñu ngi dellu siwaat ci suñu bindu muqaddimatul izya tombe tey jii ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent muy la vingt neuf décembre macha allah at mi jeex ba pare nuyu ñëpp ziar ñëpp nag baalu ñëpp xaq fa tabarakallahu di wax ni rek suñu ajjuma ji ñu jëm moy farata ji ñu jëm yàlla na nangu ak bépp farata ak fuñ ko mën joxeet joxeeti ci kaw suuf yàlla yàlla nangu farata booba xam ngeen ni àjjuma bi weesu ñu ngi taxaw woon ci bunt bi nga xamante ni dañu waxoon ñu teg foofu suñu loxo ndax bi ñu agsee ba ci wa yaxrumu allaibu bi shatranji wa yaxrumu atasawuru an sifati l insani aw xayrihi min al xayawaanaati foofu la ñu teg woon suñu loxo mu nekkoon page deux cent quarante deux <coughs> tey jii ñu war a teg foofu suñu loxo rek seetantal bu baax li ñu tuddoon keroog te jaar ci rek jàll muy carte mbokki jullit ak léegi ni mu mel ci àddina bi rawatina Sénégal moom carte xam naa bala ñuy wax parents yi dara sax dinañ wax suñu autorité yi parce que amul lenn loo xamante ne mën naa dugg ci réewum jàmbur di fa dox lu dul ni jaar na ci ay autorité ñu signé ay accord yoo xamante ne day am diggante kooku dugg ci réew mi ak <coughs> waa réew mi ci boppam il faut loolu am kon bu ñu amee lu ñu seetlu ci fi ñu teg suñu loxo ci ci muqaddima bi muy wàllu carte ak ni carte tëdd léegi dëgg dëgg dëgg nag war nañ koo jàmbat nag war nañu fàttaliwaat it nag suñu autorité yi li carte di def ci biir réew mi xam ngeen ni bu jëkk kart dafa yombul woon a def lu tax yombul woon a def dafa amoon lu fi xewoon rek ñu daan ko loterie nationale ay jamono xëy na yow ma nekk fu sori doo xam foo koy jëndee yenn saa yi aussi nga rus dem jëndi ko yenn saa yi aussi tabarkalla tabarkalla waaye nag ñu dem ba jamono di dox jamono di dox ba yàgg ñu indi fi leneen lu ñu tudde Lonase xam ngeen ni yàlla dogal muy benn kii boo xamante ne dañ ko fi sanc pour carte loolaat ñu ubbi woon ay kiosque ñi def PMI ah kiosque yooyu nga xamante ne daan nañ ko def am na mbañ gàcce koo xamante ni mbañum rus la dana rus dem mos ci kiosque yooyu taxaw nit di ko gis mu di fa carte am na ñoo xamante ni jombale woon nañ ko seen bopp ñeen ñi sax daan nañu yónnee waaye boobu it carte yombul woon ñu dem ba yàgg nag léegi xam ngeen ni carte léegi ni mu mel ci réew mi dëgg dëgg dëgg suñu autorité yi laataa ñuy wax dara parents yi war nañ ci wax xam ngeen ni yéen ñëpp a ngi gis ci réew mi fu ñuy romb ñu bind pari foot lan la ñuy bind ci bunt ba interdit au moins de dix-huit ans jël benn croix bu rouge def ko ci dix-huit bi wane ni ko am dix-huit ans waruloo jouer carte gi waaye waxuma sax waruñu ko woon joué ko waroon nañ ko joué ndax loolu moom yàgg na ci réew mi te am na ñoo xamante ni tamit nag wax wax wax wax wax kenn mënut a fexe ba duñu joué carte ndax dafa bokk ci ñoom donte lee ñoo la gën a xam ne xaraam na waaye man li ma ci ñor mooy suñu njaboot gu ndaw gi ci dugg gis nga boo demee ci seen barab yooyu ñu tudde interdit au mois de dix-huit ans defal nga setantal ko <coughs> ay xale yu ndaw nga fay fekk xale yu amul dix ans ñooy ñëw di jouer ci biir te pourtant kenn du leen wax dara te pourtant ñu ngi ko bind ci bunt bi muy kii ñuy tuddee PF muy pari foot nga xam ni bari na xale yoo xamante ne daañu xëy tàggoo jàngi seen kër wallaay wuñu ñu ngi foofu ci barab yooyu di carte léegi nag xam nga barab yi aussi boo gisee niñ koy masqué yenn saa yi nga gis sax ñu def ci rideau boo xamante ne sax rideau ba sax du du rideau bu am solo yow mi koy romb da ngay jàpp ne sax ak tàng naa la gu xale yi di dugg déedéet kartukaay la ay waay suñu autorité yi nag war nañ ñoo mën a dimbali nag wax dëgg yàlla ba kooku duggoon ci biir réew mi indi fi ak carte di ko defit nag ñu wax ak moom ba nga xamante ni suñu njaboot yi ñi am dix-huit ans mooy de dix-huit ans ñu bañ faa dugg beneen ba ca des mooy am na beneen bu ñëwaat boo xam ni moo gën a garaaw <coughs> yow mi may dégg di jëndal sa doom ji téléphone xaalisu ndekki xaalis yi nga koy jox pour goûter paas bi nga koy jox wallahi alazim maa la wax ne la xale yi bari léegi talatuñu lekk talatuñu naan xaw ma xam parent yi ñu ngi ciy bàyyi xel wala déet réew mii am na fi xale yi ndaw yoo xamante ne xoolal dañuy dajaloo àndandoo ak benn mag ñu luye ak kër kër laa wax de jënd télévision jënd téléphone yu cher yor ko dugg ci biir di carte kooku ñu wax wan x bet xaw ba xam yéen a ngi koy bàyyi xelam déet ñi naan ko naar bi da dégg xale yi naan tekki naa naar bee ma tax a tekki waaw man sama avenir maa ngi ko wékk ci naar bi muy wan x nga xamante ni bu jëkk nga xam ni pari foot bi ma nga fële ca mbedd ma mais léegi lii ci sa biir téléphone lañ la ko indil sa biir téléphone lañ la ko indil nga xamante ni xale yi di nga ci gis koo xamante ni day sàcc xaalis wooy juróom lu ne la ñuy def rien ko pour dugg rek du jeu te pourtant mu ngi ci réew mi nit ñi gis nañ ko suñu autorités yi gis nañ ko ma ngi yàq suñu njaboot gi xam ngeen ni réew moo xamante ne bu ñu demee ba njaboot ga genn wàll ga ñee ngay dem ca gaal ga genn wàll gi fi des yépp seen avenir nee na ñu ngi ko wécc ci carte parce que dafa noppale ak carte danger yi ci nekk barab yi ñu koy defee nga xamante ni dañuy mujj nekk ay toxkat dañuy mujj nekk ay naankatu sàngara dañuy mujj nekk ay kat parce que boo ci perte lu nekk mën naa am xaalis ba nga ciy gagné aussi tamit yenn saa yi nag parents yi ngeen bàyyi xel parce que sa doom bi nga xamante ni neexul ba neexul gis nga ko xale boo xamante ni mu ngi toll ci nekk ci secondaire xale bu góor nga gis ko muy sol dàll yoo xamante ni wóor na leen ni jëndoo ko yow parent bi te xaalis bu baree baree bari lay jor nga gis ko mu yor téléphone boo xamante ni wóor na la ni téléphone bi ngeen di xool xale yi léegi ay téléphone u sept cent mille francs téléphone u huit cent mille francs ay xale yu ndaw ñu di ko yor te parent bi yow dooni ko foo ko jëlee bàyyi suñu doom yi rek wallahi alazim ñi ci ëpp xam ngeen fan lañ koy jële maa la ko wax kart gi one xbet bii ci lañ koy jële lu garaaw a garaaw a garaaw la nag ma ngi def yoo xamante nag ci dëkk bi nañ ci bàyyi xel na ci parents yi bàyyi xel suñu autorités yu aussi ñu ngi leen di ñaan ñu bàyyi ci xel waaw yéen ñu signé woon ak li nga xamante ni yàlla dogal na fa tabaarakallaahu mooy ak ñooñu respecté wuñ ko parce que buñ nee interdit au moins de dix huit ans boo demee ci biir xale yoo xamante ne amuñu dix ans nga fay fekk beneen bi ci des aussi mooy wàllu carte gi ci téléphone yi kooku moom parents yi na ngeen ci jóg sa doom yi nga xamante ni xëy nga suba ba ngoon gisoo leen wala guddi nga gis leen ñu teg ñu ne ci téléphone yi dajaloo defal nii defal nii mais lijjantil ba xam lan na ñuy def ku nekk ci ñun sàmm nga bu ko defee kon ñu teg foofu suñu baaraam rek te ñu bàyyiloo xel suñu bopp bàyyiloo xel njaboot gi xam ni it am na yu xew ci jamono yoo xamante ne musiba naaru laahi la ki nekkoon ci darsib mooy seen mbokk seen xarit Abdul Xaadir Ngom fii ci Daara Nuurul Huda ba beneen àjjuma incha allah salaamualeykum wa